auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi jégalu nag ndax damaa nekk ci benn station gare frontière muy gaar yi saxaar yi di daw moom mel na kon nag bur bi bu ngeen ci mën a dégg muy annoncement train yi ak riir mi ngeen xam ne rek nañ leen ko waxee woon keroog rek yenn saa yi dañuy toll foo xam ne day am lu ñuy bëgg a jàllale lool fañ toll rek foofu lañ koy mën a defe ñoom nag tey point bu ma bëgg a ñëw partagé wu ko ak àddina góor ak jigéen mag ak ndaw fépp fu jullit nekk te kàddu yi di la mën a fekk fa nga xamante ne si fa nga nekk di ñaan yàlla nag mu fekk la ci jàmm te mën a def ci yow e, loo xamee ne que nii dana doon li gën ci yow e, ñu ñëw tey ci li nga xam ne mooy sant yàlla mbokk sant yàlla day bari na lu nit ñàkk te ñàkk sant yàlla ko ko yóbbee sëñ Tuubaa da daana wax na yaa rabbi in axtaytani fa sukkur wa in manaxta faridan wa sabru su ma ñaanee yàlla yàlla may ma dama koy sant waaye su ma ñaanee yàlla mu gantal ma muñ te ñaanal yàlla mu gantal mooy dëgg-dëgg ak may ndax ci la la yàlla di fàttali ko ci la wañ say ayib te foofee sëñ Tuubaa taxawoon jullit bépp la war mu mel na nag noonu jullit yi li nu gën a tënk te saytaane dem laxasu ca ndax xam ne mooy bunt bi nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak boromam ndax baax gu suñ borom baax ak yaatu gu mu yaatu ak yërmaande ju mu feese del moo tax mu am lu ne xaaw moom lépp taxaw ne ñaan leen ma ma may leen kan lañ ma a gis ci ku ñuy méngaleeg yàlla wala di ko tëkkaleeg yàlla ku yor alal wala mu yor loo bëgg taxaw ca digg pénc ma wala taxaw annoncé ñëpp dekk mun a ñëw leen ngeen ñaan ma ma may leen amul moom kay laqatu la ñuy def duñ la nangoo jox koo ñaan mu bañ koo leb mu lànk te ku la jekku mën a yóbbu say li nga yor loolu la wax naan rangoo ñi baad wala mooy siim cere yi ñi nga xam ne ñooy buur yi loola nekk lu doy waar ba tax na ñaawtee fii am yëpp di am yàlla nag li buur bu baax ñu war a jël ci moom exemple ci yor lépp moom lépp te dem digal ñëpp ne leen ñaan leen ma ma may leen waaye bu ñëwee bu ma leen mayee nag li njëg gi mooy na ngeen may sant kon baatub sant day di kaat sant googu nag mel na ne jullit bu am problème tey ci ñàkk sant la ko yóbbee ngay dem sax ba defe na yaay may sa bopp defe na yow li am lépp yaa koy doxal dem bay fa fagub dënn dem bay wax di bàkku di wax naan bu du woon man diw torox maa yor nangamam maa yor nangamam waaye yooyu yi nga yor nag lu jaar ci sa loxo la waaye ka koy jox nag kooka da nga ko war a sant ndax bu fekkoon te ne joxu ko woon doo sant te mbokk yi nit ak jëmmam xool leen ko lenn lu ci ne yàlla da ko cee defal ñaar ñaari tànk ñaari loxo ñaari bët gis nga ko ak ñaari tuñ ñaari nopp lenn lu ci ne da ko defal te amul lenn lu ci doomu aadama mën a ñàkk te lenn lu ci ne ba ko yàlla di def ci nit ki kenn tagguwul kenn bam defee nit ki ci biirum ndeyam di ko fa sàmm di ko fa aar kenn fekk ko ci yàlla def ca moom ba ni mu ko indee ci àddina kenn fekk ko ci te xam ngeen ne nit moom lam mën a defar ak ko suuf néew di ko jëlee ci laal yàlla loolee fu mu fekk fu mu foo ko fekk ma ngi cee fagub dënn te loola sax dala koy jaay faf boole ci muy lépp lu nit yi tëwa yàlla mi nga xam ne kenn fekk ko ci lool nag toppatoo la indi la say cër mu mat sëkk te am na ñoo xam ne si indaale bakkan am ci ñooñ indaale li nga xamante ne si mooy ak mat am nañu laago lañ judduwaale am na ñu judd dañoo judd duñ gis am nañ judd ci muuma am ñoo xam ne si dañoo judd seen cër benn du nangu loolu lépp yàlla teggil la ko jox la ko man laa may ngay faje say aajo mu digal la ne la jaamu ma digal la ne ñaan ma digal la ne la sant ma nga lank boo ko yëgee boo ko yëgul lépp saytaane jàkku na la waaye sant gi nga xam ne nag moo gën mat di fàttali ko suñ borom mooy yàlla mépp doole ñëpp waaye yërmandeem tax na loo ko mën a moy mu toog di la seetaan te soog ko jégguloo mu jéggal la ko te yow loola nit def nga daal di bëgg a jóg taxaw jéngoog moom nga dem sax ba nit du la def dara nga bëgg a jóg rek bëgg koo xañ addinaam te sakkoo ko bindoo ko defoo ko lenn boo xooloon ci yàlla loola lépp du la ci fekk te yàlla moom yi nga xam ne moom moo la defal loolo benn condition rek la ca teg jaamu ma sant ma jaamu ma sant ma jaamu ma ma ak yaa aju ci jaamu gi yëpp jërul taxaw di ko détaillé tey bu ñu yàlla bàyyi woon ñun ci suñu biir kenn ku nekk ku man sa morom duma yaakaar na àddina dana metti dana xat dund doom waaye yàlla mi mën a réglé mbir te bari yërmaande du bàyyee kenn akum naanam te nit ki day dana dem am lu ne gàññ am ñu koy rëbbu ñoo xam ne ñii dañ koo bëgg a lor ñii ña ngi koy jéemal ci baatin muy xar fa foofa ñii ngi ko koy wan ci yaakaar la mu affronté ak moom yooyu yëpp yàlla rek ci mën a aara moo tax mu ne wallahu yaxsimuka mina naas loolee bu fekkoon yàlla bàyyi na laa moom te dugalu ca benn intervention ana kon tey nan ngay mujje sa addina dana xat waaye yow yaa ngi dem yàlla di la aaral loo gisul yàlla di la sàmmal loo gisul tëdd ci sa néeg nga bokk ak nit ndey ak bàyyi wala muy sa bàyyi wala muy say mag wala muy say rakk wala muy sa bokkum ñaale wala muy say dëkkandoo rek ni nga dëkkal nga xam ne moom ay pexe mooy nga sàngoo suuf ay pexe mooy nga ñàkk li nga yor ay pexe mooy nga laago yooyu yëpp ma ngi koy fexe te yëgoo ci dara yàlla mi nga xam ne nag fa in lam takkun taraw fa innahu yaraaka waa ji fexe jëm ci yow lu ñaaw yërmande yàlla ak ndimbalal yàlla mi nga xam ne moom i tamit moom moo koy defal jàmm bi moom it muy fexe wa yamkuruuna wa yamkurullaahu walaahu xayrul maakirin kooka di fexe te yëgoo ci dara yàlla aar la sàmm la ba pexem nit kookee du ñëw ci yow mukk boo dee as gor xëy yor sa ñaari tànk yii mën a dox te xam ne am na kook ci ay beeke lay dox am ca kook day raam te balaa dund daa raam dem yalwaane te léeg-léeg ñu sarax ko léeg-léeg duñ ko sarax muy dëkk tilim dëkk coono yàlla may la ñaari tànk te ñaari tànk yooyee de war nga ciy dox ak jub yàlla may la ñaari loxo yoo xam ne si tey boo manqué woon benn loxo tey sëg dund da genn wàll gi dana dem yàlla jox la ñaari loxo ta nga gis koo xam ne si bu xëyee benn loxo la yor am ci koo xam benn loxo nga xam ne lu muy def nit a ko koy defal ak sutura ni mu mel ci doomu aadama yàlla jox la ñaari loxo kon lépp loo ciy laal war nay doon lu jub yàlla may la ñaari bët bokk yi xool leen ko jékki-jékki woon gëmm gëmm rek gëmmal sa àddina genn wàll gi nee nañ ko tipp wala la ci ëpp dem na silmaxa ni gis neexe yàlla xëy xëy xëy nangu bëti jàmbur jàmba ko sob yàlla may la loola cër cër yëpp mat kon war nga ne alhamdulilah rabbil alamin kala may loola te dara mañ ko ci bu ko jëloon kenn du ko ko laaj te kenn mënu koo porte plainte ndax tey koo dagg tànkam tey yow doomu aadama ñu jàppale tëj ci kaso bi koo xañi bat ñu teg tëj ci kaso bi koo rey ñu teg la ci kaso bi te loolu yàllaa ngi koy def jaam te kenn sañu koo taxaw ne ko nàngam kon nag kooka rek mooy buur kookaa jara gëm kookaa jara jaam waaye noonu yi li ñuy fexe ci nit ki bu du woon yàlla musiba dana am ba nga bokk ak nit ndey ak te bëggul la la dara bu sañoon tey nga faatu ndax victoire am du la yéene dara dem ba xol bi di tàng sa bêtise rek lay xëy di gis buñ la defee loolu nag boo ak déggee ci yow aw naqar xol ba sedd gisee ci yow lu lu baax xol ba tàng waaye loola lépp la ay bëgg-bëggam ak yéenam yàlla antul ko kon yàlla mala la xañ loola ma ma xañ koo ko pexeem yooye ba aar la ca loola war nga ko war sant alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin nag aw laa mi ñu koy tudd waaye sant nag ay jëfa koy def sant ay jëfa koy def waaye alhamdulilahi rabil alamin kooku làmmiñ wi rek ko wax waaye jëmmu yëpp war nañoo taxaw fekk si ko ca loola ni ko ay jëf di defee nag mooy loo yéene sa bopp yéene ko ñëpp gis nga jamono ji boo bëggee féex jërul taal ventilateur jërul taal climatiseur sa xol bi na yéene nit ñi jàmm rek gis nga xol bi bu yéene nit ñi jàmm yaay gën a féex kuy féex lu tàngoor metti metti doo ko yëg waaye gis nga ki nga xamante ne si moom moo ci sonn mooy ki nga xam ne yàlla daa dogal xol bi yéenewul kenn dara boo nekkoon ci diggum nees muy taw galaas da ngay tàng jëpp ñàkkatooy xep boo doon jël ay baari glace di ko sàngoo da ngay ñàkkatooy xep sa xol day tàngi jër kon loolu feebaru xol la na ko nit ñi di wattandiku ndax du tax li nga bëgg am te bis bu sa ab matee da nga jóge te na la nga yéene nit ko ci bon yàlla da koy jëlaat di ko ko jox sa xol di gën di tàng ngay gën a am musiba dégg nga sa àddina xat te boo faatoo dem sawara kon nañu sant yàlla ndax kat yàlla kum mbàyyi woon say noon àddina tukki waaye loo ko mooy mooy mooy rek nit dana jóg jëme ci yow am pexe yàlla na saxal loola te kenn ku nekk gis nga ne tey addina bi boo yoroon tey la nga gën a fonk ba nit ñi di la ñaan audience nga da ngay wut ay garde teg ci sa bunt bi bu nit ñëwoon tey bëgg la sàkkal pexe tey ñooy jàkkaarloog ñoom bu fekkante ne dem nañ ba yàlla dogal ñu réussir loola loola du agsi ci yow bu ñu ko réussirul nag danañ agsi ci yow la tax nga wut ay garde nag bëgg ku la aar ndax da nga tollu diggante boo xam ne si doo mënal sa bopp dara yàlla nag mooy garde bu mag bi nga xam ne moom boo ko yëgee boo ko yëgul boo ko jaamoo boo ko jaamul ngi lay dimbali ci baatub arrahmaanu baatub arrahiim mooy ñi nga xamante ne si ñoom ñooy jaamukati yàlla yi te moom la sëñ Tuubaa tënk xasida gi muy wax rabbi bi maa yasarom asaana xat fajaa bi jaay afdal man lillaahi xat dajaa kon bokk yi nañu sant yàlla ndax sant yàlla du caagi ne nii ko nit ñi jàppee da ngay am alal ju ne gàññ doole sant yàlla te alal jooje de fitna mën na la caa dab ndax amin wa du lew te na nga koy eh, jëfe du lew te doo ci dimbali kenn ak yooyu nag bu la ci yàlla toppee a ah, boo duggee bàmmeel da nga ne siiwa mucc da nga ne siiwa mucc kon nañuy sant yàlla nañuy sant yàlla ndax sant yàlla ci fànn yi bari na yàlla lépp lañ ko war a sant amul lañ ko sant ci li bàyyi ko ci li ndax loo am moo ko amal bu neexoon yàlla tey jii li nga gën a ragal mën na la ko boole suba ak ngoon mu di la lor te doo ci mën dara bu neexoon yàlla jii sa noon yi la gën a bañ mën na laa booleeg ñoom ñu di la faagaagal te doo ci man dara bu neexoon yàlla li nga yaakaar ne boo ko amee kenn du la reetaan mën na la koo xaj ba faaw nit ñi dëkk di la saboté ak reetaan yàlla mën na laa teg gàcce goo xam ne nii duutoo tàggoog moom mukk waaye suturaal gu mu suturaal doomu aadama ngir jëmmi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag nun loolee lañ war a teg suñu tànk di jaamu yàlla ak sant yàlla di jaamu yàlla ak sant yàlla waree su la jaamu ku dul yàlla waree su la sant ku dul yàlla yàlla sax jël na ci cant googu sax ba ne la sax na nga ciy sant doomu aadama ngir cant santaane gu ma ko sant ndax man lam yaskuru naasa laa yaskuru laa ku dul sant doomu adama doo sant yàlla waaye nag ci santoog doomu adama gi ci santoog suñ borom gi lañ ko jëlee ndax ndigal suñ kon nag na ngeen xam ne addina bi xat na ku fi dund dund junni at lee nga jóge fi ku fi dund téeméeri at lee nga jóge fi ku fi dund fanweeri at lee nga jóge fi te biir dund kooku bés bu nekk la nga cay man lu tuuti lay doon boo xëyee yow liggéey jaamu yàlla diggante yooyu ay occupation la bu guddi jotee guddi gi moog bëccëg bi daanaka ñoo tolloo lépp da nga koy nelaw te nelaw yooyu bu ci yàlla bindaloon li nga xamante ni si mu nga ko war a jaamu te nanguwoo ko mën na laa tàbbal fa nga xamante ne si mooy safaan ba te teewul yàlla di la ko jéggal ndiir si nga fi defa ko suuf néew nag war nga feetal loo jaamoo yàlla loolu yàlla dimbalee war nga feetal loolu fàggool addina ngir sa àddina mën a jag ngir sa àllaaxira mën a jag loola nag ku ko ku ko fa bàyyi di jéemal sa moromu doomu aadama moo bindul sa koo ko xamoo fu ko yàlla bindee mën ngaa am problème ndax bakkan moom yàllaa ko yore moo koy indi moo ko yóbbu wërsëg yàllaa koy joxe moo koy joxe moo koy xañe dana ko jox nit ba mu ne xaawal mu xëy defe ne boppam moom ci boppam moom mooy boppam yàlla xëy nangu ko ba mu nekkaat ci suufu si doomu aadama yi asfala saafiliin gën a suufe ñi ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoom ñoo mën na laa ñàkkal ba nga defee ne yow mii mayu la dara te fekk lam la may yàlla ku ko ñaan mu may la waaye loo ko may day seet la gën ci yow mu defal la ko nit ñi nag dañoo defe ne mayog suñ borom mi ngi ci wërsëg alalu àddina alal la ci gën a tuuti nit dana ko yor te ko mën a jëriñoo nit dana yor ay milliards du ko jëriñoo nit dana yor ay milliards du ko tal nit dana yor milliard ci fitna lay dëkk nit dana yor milliard ba ñàkkaat ko fitna topp ko kon nag fajug aajo nekkul ci alal ak talla ak wér ak jàmm mucc ak nangu gi nga xamante ne si nangul nga ko sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne si mooy dëgg dëgg ay may ku ko yàlla may may na la lépp ku ko yàlla xañ xañ na lépp alal du dara ndax alal jii ñëpp mbo addina sépp ci maatee bokk yam muy ki gëm yàlla ak ki gëmul yàlla waaye lislaam ji moom jullit yi rek a ko tax a jóg yaa ayyuhal lazina amanu ju ngeen dégg jullit yee ko moom yaa ayyuhan naasu ju ngeen dégg ñëpp a ci yem te ba yaa naasu ba ko alxuraan njëkkee wàccee ah booba nit ñi la doon waxal biñ demee ba ñi ñi sallallahu alayhi woo ñu nangu ko gëm nag booy waxati appel bi bu ñëw yaa ayyuhal lazina amanu laay wax amanu jooje nag ku ci génnee sa bopp sa addina ak sa àllaaxira dana yàqu mi ngi gëmm te fa mu jëm ëllëg bëgg na fa daja ànd ak mbooloo mu dul jeex te ci mbindeef yi la ko bëgg a jële ndax ki ñaan gu nekkoon ci moom tey jii moo ko xañ tey pouvoiram mu bëgg nag jël mbooloo mépp ànd ak ñoom dëkkandoog ñoom sawara kon iñaan nañ koy ko iñaan baaxul addina bi xat na ku faatu boo dund dund junni at day mel ne mosoo jaar ci addina te booba say jëf dong nga la fay mën a jëriñ waaye leneen du la fa mën a jëriñ sant yàlla nag jaamu yàlla di ñaan yàlla te yaakaar yàlla di wëkkirlu ci yàlla di jàng alxuraan di jàng kemt kemtulaay kattan xasiday sëriñ Tuubaa yii te sa xol bii boo nekkee ci yooyu yàlla la koy raxasal ba mu set ak iñaan sax doo ko tal boo gisee ku koy def sax da ngay da ngay defee ne lii maanaam leneen la kon nag te yooyu mooy li nga xam ne moo mën a génne ak iñaan ci ko ko desal gannaaw nag na nga xam ne yaay gën a euh, yées ci nit ñi wala nga siyaas billahi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë